ce samedi, hein, il euh, y a eu l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football qui s'est tenue ce, samedi à Guéro, ce samedi dernier à Guéro. Euh, L'année lañ mën a retenir euh, Pape Mboy ci li nga xamante bi mais à la fin de l'âge, hein, tout ça pour ça. tout ça pour ça. que. lan mooy tout ça comme ça c'est-à-dire que coow li. parce que xam nga coow li lu ko waroon mooy ministère dañ ko pousse. dañuy dañ ko pousse dañ ko pousse. foo réglé ngeen réglé à la demande d'un certain nombre de clubs. Mm-hmm. d'ailleurs nombre de clubs yi ko demandé woon sax identifié wuñ leen far ba xam nombre bi exactement ñaan la. mais pour ngeen régler norme damay ñëw non taxawal. parce que président Koso wax reconnaître na ko fi nee na c'est vrai que luñ def du yoon. moo tax nangu nañu. fédération ak fool naka la ñuy toogee. waaw il a il a non man j'étais pas là j'ai pas. non mais il a reconnu moi je vous dis. mais je ah, non non non waaye mais mais attendez. Euh, attendez man dans. AG bi a def na mhm. mhm. fekke naa ko du début à la fin. ordinaire bi ordinaire bi fekke naa du début à la fin. mais balaa AG dañ ko mais man dama jàpp mhm. conditions yi ñu ko posé. dafa conditions yoo xam doy la veille de l'AG alors que tous les acteurs du football mobilisés nous nañ leen ñu jóge ci région yi. à Mbour ou autour de guérou en tout cas pour participer à l'assemblée générale. Nous ñëw la veille c'est un état. ñu le courrier indi ko un samedi jour non ouvrable nous, kan nous déchargé un vigile nous a déchargé nous la volonté du président Senghor et des membres du comité exécutif de faire preuve de sérénité Qu'on peut-être heure bi mais ils ont fait preuve de responsabilité. mais attends parce que bon forcément ça, parce que rien ne nous obligeait rien n'obligeait la fédération. à reporter. rien rien ne nous obligeait. Ça, c'est grave. Non, non, non, je l'ai dit. Rien, non, mais j'assume. J'assume. Vous, marchez, sur les ah, textes de la ah, fédération. Attendez, attendez. Moi, j'ai dit, rien ne nous oblige, dans ces conditions de forme, de reporter l'âge prévu initialement. Ordinaire. Maintenant, il y a Nous sommes à l'Assemblée générale. Nous demandons un report, parce qu'on n'a pas respecté les délais. On n'a pas respecté les délais. Mhm et de la la fédération l'a reconnu la fédération l'a reconnu par l'intermédiaire de Kosa Diané parce que dañuy Faté, l'assemblée générale de décembre xam nga man li wax mm-hmm. ci ay fait là, ko teg mm-hmm. nekkul loo xam ne sama imagination la mm-hmm. dafa am loo xam ne euh, dafa am moment bu ñu ko discuter loo xam point d'information bokkul ak foo ñëw di adopter ay textes texte boo koy def assemblée générale extraordinaire moom spécialement convoqué à cet effet moom mun adopter Réforme. réformes. loolu moom débat je pense que amul à ce niveau mais assemblée générale bi coow bi mu report bi traitement médiatique bi nga xamante ne moom report bi mais bi ñu heureusement journalistes yëpp ngi dans la salle certainement les renseignements généraux étaient dans la salle je pense que à la suite de cette assemblée générale ñi demandé un report bi am nañu une dette morale envers la ministre des sports envers les acteurs du football sénégalais envers les populations sénégalaises ils ont une dette morale parce que dañu indi ci lo xamné ne jarul ah, mais non non je je je termine xam nga lan un mm, mm, mm. Yo su da nga poser problème de délai pour demander le report Nous report nga am délai nga am délai jours presque am jours ñu yónnee le tous les documents yi nga don je pense que su n'est da nga ñëw ci AG bi euh, su dee am nga looy wax war nga mun a bind teel a def say observation renvoyé ko ci les mêmes délais yi nga xamante ne yow yaa ko doon au début am nga droit def say observation mais na bind ko nga yónnee ko en respectant les délais yi nga xam ne moom nga doon laaj mais bi ci assemblée générale bi malgré coow bi amoon yëpp ñaata intervenant qui jóg ramé à contre-courant de l'Assemblée assemblée générale quatre sur près de 400 clubs au Sénégal je pense que looloo tax ma ne tout ça pour ça Alhamdulillah. on est en démocratie. On est en démocratie. On est en démocratie. c'est grave. en démocratie. Ah, non man ne ma il y a près de 400 clubs au Sénégal. Mm. il y a intervenant ñoom ñoo jóg. ramé à contre-courant de l'Assemblée générale. Heureusement, le rapport d'activité a été acclamé par acclamation. Mm. Le rapport financier a été adopté par acclamation le commissaire au compte, le cabinet IEC, SARL, a délivré son cutis devant tout le monde, devant la presse, devant nos invités de la FIFA et autres. Je pense que comme il est, on a tout ça pour ça. Parce que nous, on est en train de préparer un hold-up. C'est le terme qui a été utilisé pour des passage en force pour que Augustin mën mais la vérité du débat moi, même réforme Augustin nous mu dit, wax su buñ ko convoqué pour adopter parce que actuellement àggaguñ ci adoption. Mhm. am na lu ñu régler suñu diggante ak FIFA. suñu paré bañu d'accord ak FIFA limu wax ñu soog jox l'autorité étatique la tutelle ñu mëna wax li wax ñu soog mëna mën yobbu ko ci acteurs yi partagé ko adopter ko. mais Augustin su nekkee ne adoption texte boobu dafay nar a toucher la matière électorale. wala ñu yaakaar ne dina yàq assemblée générale bi war a ñëw mois d'août. ñu sursoir ko buñ demee assemblée générale équipe bu fi nekk. Mhm. continuer réforme taxi c'est des taxis qui datent de 2009 c'est des taxis qui ont été dépassé donc ko nous Nous, nous ñëpp ñu c'est demander démarche bi président Koso la commission juridique def mais monde nous werante ils ont le tour du Sénégal à deux reprises. ils ont rencontré tous les livres. d'ailleurs il anecdote sax des des amendements yu ñu toucher la matière électorale de toucher les statuts alors que les enjeux sont ailleurs. enjeu mooy li ñu doon wax sànq quel modèle économique pour notre football pour que club bu nekk mënti gis ligue bi nekk ligue bu am doole fédération bi am ay sources de financement yoo xamante ne Pape tout le temps aussi ah. dañ doon dégg ñu dañuy revoir à taxi dañuy revoir à taxi mais ba ko mais bii aussi tey boo ko bëggee indi nekk di revoir taxi revoir taxi ñi ko doon ñoom ñooy taxawaat di teg les bâtons dans les roues mais kon à la ñuy revoir ah, il faut de la bonne volonté il faut la bonne volonté pour qu'on arrive ça sera pour Ce sera. Non. En, février, en février, on va convoquer après hmm. que nous. D'accord avec FIFA. Parce que FIFA, de fois, des observations, y a ko détail si vous voulez. FIFA, par exemple, pour Bougoul, 400 personnes d'ailleurs de voter, nous votent King Fat, de voter pour ce Nek Lolo, nous, Assemblée générale, moment de rencontre là, entre l'ensemble des acteurs du football sénégalais, nous avons ben place, du le football. FIFA buggul ñu am un comité exécutif de. ñu comité exécutif de 31 membres. dafa bëgg ñu rester ba pare dafa bëgg ñu un système grand électeur. mais loolu amoon na fi mais même fi avons ay problème la indi donc nous, dañu ne lii dafa ci réalité c'est plus démocratique parce que tey mën nga jox ce mandat d'un président de ligue dans une région donnée mu ñëw un détournement ñu ne ko demal voter dans un sens mu dem voter feneen xam nga donc yooyu ñuy def yaakaar naa ne intérêt wu acteur wu football sénégalais te FIFA yaakaar naa ne. booba tey ñu ngi koy wax tamit Pape Mbodj. te te matérialisé bu nekkee ne bu nekkee da ngay teg réforme saa yi boo ko tegee am na ñoo xamante ne il freine. Mm. il tire le frein en main mais doo avancer. d'accord te loolu moom moo ñu dal mais incha allah fédération li mu war a def. Mm-hmm. mooy en février. Mm-hmm. suñu ñu defee observation FIFA ñu joxe état moo kii ba pare. da nga xam ne lépp pare na dañu woote assemblée générale extraordinaire proposé ko les acteurs du football sénégalais pour adoption ñom li ci nek ñom ñoko bind suñ ko adopté ñu xamné ñom ñoko buñ ko adopté wu ñu xamné ñom adopté wu loolu lañ li mais réforme mhm. la réforme est inéluctable bu dé bëgg nañu suñ football progresser mhm. dem de l'avant mhm. parce que dans le sport moderne mbay on est en économie on est en entreprise avec les mêmes logiques économiques d'accord d'accord président Jamil dégg nga li nga xamante ni moom Pape Mbodj wax les réformes.